ngeen ko déggee rek xam ne lu rëy xewati na ñu fulaal ko nag fay daal ko moo waral jigéenu Calabas waa leket gi guy Mariama di woo Sénégal yépp seen bis bu mag bii ñuy def jeudi le 6. tey waa leketu guy Mariama liggéeyal suñu gox muy des femmes de valeur femmes yi nga xamante ne ci développement la ñuy yëngu. ñoo ñëw tey di invité kullu jullit bàyyiwuñu benn tarixa ci conférence bu rëy bii nga xamante ne ñu ngi koy dëkkmal muy suñu ñaareelu conférence incha allah fii ci Guy Mariama rue cinq angle 2 bis leketu Guy Mariama nag jiwoo woo naataangoo leketam yépp jiwoo ki nga xamante ne nag mënuñu ko bañ a wax muy ki nga xam ne moo jàppale jigéen ñi ci ministre de la femme wan ñu yoonu liggéey di ci woo bépp kilifa bu nekk nag ci biir Médina bi suñu waxee bépp kilifa nag ku ci nekk ci sa rang ak ci sa qualité ñu la ci woo di woo ASC association yi fi nekk ñun daal Médina lépp ñëpp la ñu invité pour ñu ñëw ànd ak ñun ci bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne weeru koor liñ ci namm mooy am jotaay même bu donte mu doon benn ci weer wi pour ñu waxtaane li ci diine fa tabarakallahu du ci woo président d'honneur alaaji Ousseyn Ndoye fa tabarakallahu ak seen parrain d'honneur kii di monsieur le maire Bamba Fall nga xam ne fa tabarakallahu musu leen seetaan ci dara motax ñu def ko parrain à vie parrain d'honneur donneur. barakallah ci le bienfaiteur de l'islam muy alaaji Cheikh sek di ci Ibakan muy trésorier assemblée nationale di ci professeur Daouda Ndiaye di ci wo nak suñu dom directeur Birandour Ndour bu TFM di ci wo fay fa tabaarakallaahu masaalikul jinaan di ci woo monsieur Idrissa gànn Gueye di footballeur fa tabaarakallaahu di ci woo waa Médina yépp ñooñ ñu tudd yàlla dafa dogal ñoom ñooy sunu ay parrain di sunu ay parrain ñu yaakaar leen ci bis bi mbootaay bi kalabaas bi leket gi di leen ci woo waaye nag bu parrain yi jàllee am nañ ay marraine de ndax nag Adja Fatou Diané Gueye muy ministre de la femme di jàppale jigéen ñi dugg ci mbootaay jigéen ñi moom it ñu ko ci woo Adja Fatou Diané waa Medina ñu ngi lay xaar de le 6 jeudi di woo Adja Awa Diène député Adja Ngouda Diène député madame Ndiémé Gueye muy directrice piscine olympique kooku nag di setu maam Cheikh Sidi Hadj Malick fa tabarakallah di woo madame Fatima Sy Dieye di ci woo daal Medina yeb bayiwuñu bayiwuñu ASC bayiwuñu kenn ñi ngi wo wa Medina yeb di dox ñep dig dajé donc le jeudi 6 fee Guy à partir de 11h di ci que nak suñu xarit suñu la muy Tafsir Abdourahmane gay ak seexam muy Chérif Mamine Aydara ñi ngi